biye bi bi boolu bëgg sëriñ Saaliw bëgg naa bëgg ay gis nga dafa de lu sa sumbulu ak xaas ñoo waral sama teewaay ndax tey su ma sumbulu moo tax sumbulu moo wax xaas samay wax boole ma ak moom xaas jël ma téye ma yal na sëy bi am barke am ci njaboot bu am barke ah waaw euh, te sumbulu li ma koy conseillé rek bu mu déglu na dunda tëxlu yor ay nopp gar mi xam naa ni sax yor na ko ba pare yor na ay bëtu gar mi yor na làmmiñu gar mi waaw na comporté woo comporté woo gar mi rek ndax yor na jëkkër ju baax waaye xaas tamit am na jabar ju baax barke sëñ Fall sumbulu sama rakk la doon xale bu baax moo tax ma teew buri di séeri Balla Gaye di sama Soumboulou du suñu rak di suñu jigen di suñu séri ah sëñ abdou Diop taw féex doon ko bax sëñ abdou Diop khas ko ko bax ko ñu teew. ni du dundee xew mi tay nice li dafa neex te damaa namu yi man damaa namu buru yi yeen kewele da ngeen namu buru yi yow namu buru yi xam nga moo tax ma budul buru bi sax ma ne xaaral Soumboulou day sama rak sama soxna nga fi fan yëpp mu ngi fi ko jàppale nak mom waaw ñun ñoo bokku lepp dal waaw sama teewaay nag dara walu ko lu relation bi relation fraternelle relation amicale parce que vraiment su nekk baax ba ñu xamantee mu yàgg quoi di ko ñaanal rek lii nii mu dugg si mu am ci ndam gis nañ soppe la bi bi moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam